Amen. koy seetaan na nga dem ca tele Tijaani Maalikiya bul tarde waxtaan ya ak way alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi ñuy seetaan ci télévision malikiya ak tabarakallahu mboolem jullit ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey ñu ngi fii ci sunu kër mag di sunu sang دي الشيخ السيد تبارك الله عيسى لاي سيدنا عيسى لاي دي دوم تي مولانا الخليفة سيدنا عبد الله تشاولاي خليف جنرال بولايني ci turu télévision malikiya sëriñ maxtaar njaay al amin ubbi télé bi ci wax nag ni garab kenn mën na ko jëmbat suuxat ko waaye su amee ker meññ nag moomatu ko ñu bare mën nañu kerlu ca ker ga ñu bare mën nañu jariñu ca meññant ma kon télévision malikiya garab la gu sax ci kër Maulana Cheikh Alxaaji Malik si radiallahu anhu waaye këru diine yépp ñoo ko bokk ndax li ko tax a jóg mooy jàllale message yu yàlla ak yenent bi ak mag ñu baax ñi nga xam ni su réew mi tàkkul ba nëgë ni yàlla ak seen liggéey ak seen barke ak seen ñaan moo tax ci liggéey bu rafet boobu nag ci la jote ndigal ci mawlaana al xalifa aboubacar si mansour al xalifatul am li tariqa tijaniya mu ni ko daal maxtaar laa sama xol a sedd lii nga wax ni tele bi pour këru diine yëpp la nga jël équipe ñu déplacé wu dem ca sunu maam ja ca Touba dem ca sunu maam ja ca madina Baye sunu maam ja ca na Niassène sunu maam ja ca Layeen sunu maam xalifa Cheikh Al Hadj radiallahu anhu ak mboolem kilifa diine yi ci réew mi fu ci ne nga dugal fa sa loxo barkeeloo ko tudde ko xarum tabaski soo demee nga firndeel leen seen cofeel ak këri diine yi ni ñu nekk benn maa ngi sàkku ci yow nga def ko te boo demee nga sàkku ci ñoom ñu ñaan ci tele bi ndax yàlla barkeel ndax yàlla yaatal ko ndax itam li tax ñu euh, créer ko mu mën a nekk tabaarakallahu sëriñ bi yooyu tànk tey moo nu tax a jóg ñëw ci sunu këru bopp nag fekk fi tam sunu bopp tabaarakallahu maxtaar waxoon ni bu nu dikkee nañu la wax ni haddiya yi mu indi benn bi tabaarakallahu way juróom wu teddu yi moo ko moom di xalifa bi beneen bi ci des yow mi nga xam ni yoway loxo ndey jooram di kàddoom di léppam yaa ko moom yooyu tànk tabaarakallahu moo nekkoon sunuy tànk tey xam naa du nu téye wax ji lu yàgg dañ lay jox rek nga nuyoo subaarakallaahu indi tamit nag say nasaa'ix ci wàllu télévision euh, fan lañ ci war a mën a jaar ñun ba liñ ci bëgg ñu réussir ko loolu yaakaar naa ni incha allahu tey bu ñu ko taatane ci yow daañ ci am lu nu mën a jëriñoo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 balaa may tàmbali ci turam moom El Hadj Abdoulaye ci lay jaar nuyu kilifa diine yi nga xamante ni macha allah ci réew mii ñoom la fi yàlla daal di ñaan sunu boroom ci ak mbaaxam sunu kilifa diine yàlla na leen fi yàlla yàggal e ñu yàgg jiite njaboot geet njaboot geet déglu leen ñu déggante ñoom ñëpp yàlla def ci seeni barke gën cee barkeel sunu réew dalal ko ah mu mel ni nag da ngeen ñëw foo xamante ni macha allah ni nga ko waxee dëgg piir la ci seen kër ngeen ñëw kër sëriñ Ablaay këru lislaam la ku ni këru lislaam këri këri diine yi la ku xam sëriñ Ablaay dëgg xaqiqatan ah damay wax ni boo bëggee làmb sëriñ Ablaay ci tariixa dëgg gëwma nga daj mais bu dee ci lislaam di nga ko ngëpp parce que nag ñëpp la bokkal ñëpp ko bëgg te ñëpp la bëgg ah télévision almalikiya ngeen ñëw foo xamante ne tim lu yéeme la buñ nee Mokhtar Ndiaye al amin man ma meloon al a gën na le ñu ngi ne suñu bokk foto ñun ñaar ñuy samay baay la ko dale damay wax ni réewum senegal yàlla dafa am lu mu leen baaxe li ñuy tudd tariixa sunuy maam yi nanu ko dunde dafa yéeme dañu ko dunde ci jamono joo xamante ni ndekete yoo ña doon bañ tariixa fii mu toll tariixa leen war a jàmmal dañ ñëwoon yi ni dañ dara ña waxoon ni ñoom du duñu dara tey jii pour ñu am jàmm ci sunu këri diine yi la ko àdduna xoole léegi liñ tudde islam confrérique dañ ni won suñu xabru yi suñu bammel yi sax lañuy jaamu ak nangam nangam tay ji yaakaar naa ñaka doon wax yépp nee nañu ah dem leen ci Sénégal islam confrérique fa la jàmm nangam te l'islam kat cosaan la mooy jàmm udxulu fi silmi kaafa d'accord ak noo ko mën a tuddee kon nu war kaa ànd sant yàlla bu ñu amee dal amee stabilité comme ni nga ko waxee dëgg-dëgg suñu kër kër yi diine joué nañ ci rôle yu rëy te sa fii ñu toll sax lañ ko gën a soxla kon kër gu ci ne li nga xamante ni moom la diine tudd ñu tudd ko tadaamulul islaam yi lu ci waay yor muy uti na xam ni macha allah kër yëpp ko moom kon nun kër gu fi yor manoore waat nañ ci alxuraan ni sunu manoore la ñun loolu la loolu la ñu xam mënuloo génn ci lenn damay faral wax ni Sénégal ci wàllu tarixa tarixa laa wax génnul ñeent tarixa tijaniya dafa bari ay kër ki branche tarixa xaadiriya am na ay kër ki branche laaheniya muridiya Sénégal génnul ñeent yi te amu ci benn sénégalais bu man a yëkkati sa loxo taxaw ni bokkuma ci fen parce que imaa nga am fii maam am fii sii am fii lii am fii lële loolu lépp nag xam nga lan la ngëneel ci kaw ngëneel ngëneel ci kaw ngëneel ngëneel ci kaw ngëneel kon bu al euh, malikiye ñëwee nga xamante ne dotta ba ci suñ maam xaaj malik si radiyallahu taala anhu jóge tam ci xadral malikiya te kafane di sunu waajur sëñ Aboubacar Sy Mansour sunu waajura yàlla dafa def man a ah, xëj na sama chance lii këri diine ci réew mi da laa wax fu ne am naa fa fauteuil bu ma toog te loolu sama waajur ci laa ko nange bokk waxuma la nag ci aada waaye ci ak mbokk nag Tiwaawan ah man damay loxo li ma séq dafa bari man géej dafa ma séq ak dex lépp lu laal ci suma yaay yëpp wàllu la wax naa sànq ni sëñ Babacar radiallahu taala anhu ci li sant njaay loo laal te ñang jolof ba waalo man la lu sant loo man la ba nangam na donc looloy Sénégal kon lii bu ñëwee bokkaat ci li fi dañuy ñaan yàlla ci ak mbaaxam na gën a ne luy dajale bu ko nekkul du doon lislaam de lislaam sunu borom subhanahu wa taala moo xool yonem taam ni ko dajaleel ma wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu al i'tisam lee feelul amri heey lëkkoo leen booloo leen wala tafarraqu lee laa naahiya la les ndagal kon yalla mo diklé nu benno kon télé bi na télé bo xamante li bolé boole ñi waaye tim li bolé askan wi aduna ci diversité la ko yalla bind nak yalla ba muy wax tuddul la mu jëkk wax ba muy bàkk boppam tuddul tuddul ben diiné bopam la xol ba paré wutal nit ci bopam mo am valeur ci yalla motax tax wutal na ko na ci bopom xol na ci bop parce que bopam mo ci nek kon d'abord li ëpp solo moy gëdd gi dom adam am ba pare bi lolou amé ba yalla jox nit gëddam ñaarel bi ba mu ñëw ci biir gëdd ga mu jox nit nak ci la doori dugale diiné tanat ci diiné wax ci la mu wax bu andi l'islam mais waxtu woo xeebee doomu aadama en tant que doomu aadama ni du nangam yaa jëkk weddi yàlla yow moo tax sunu borom gënuñu kaa xereñ moom mi yor ëllëg ak tey àtte ëllëg ni mu bindee ay jaamam binde leen noonu yàlla loo fi gis rek sunnatullahi fi xalqihi la yàlla rek moo xam lu tax ak nangam kon mag ñu baax ñi fi nekk xool leen réew mi ni mu mel lépp ngi fi mais mag ñi bu ñu amee dal gii ñu am ko mën a tooge nii tey a nekk loo xamante ni dafa war a dajale doomu réew mi ci li leen di jariñ bokk nekk tal sa diine tal la jaamu yàlla mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp ñoom li ñu soxla woon nun ñu jubóog yàlla rek la yaakaar ngeen nii ñi ngeen fi tudde ñi ñëpp ak li ñu daj pour lii taxaw ñoo jëlaat jaasi la dajale woon di ko tas kuñ ko waxoo dëgg seetal rek xoolal mag ñi li nu daj fu nekk bundu xol tan na leen këñ àndu noog leen kurus rek dañu amoon ak seen borom ba lii xew fi tey ñun ñii man mii toog di wax ak yéen yëpp e eh, dañoo fi fekk rek doon na fi ak barke di wax waaye liggéey ba dëgg mag ña la fi ngeen ma fekk tey que liggéey liggéey ba mu nga fee yoof toog kookaay sëriñ bi man maay taalu bi bi nekk fii di doomam nekk ak yéen war a jàkkaarloog yéen kon nak al malikiya dañuy doon yalna na am jikko sama mam xaj malik si radiyallahu taala anhu yalna na malikiya am gis nga bu amé loolu rek wat na ci alquran ni am am gën lepp malikiya na doon jikko sama mam haaj malik si radiyallahu taala anhu waxtu wu ko malikiya don doon malikiya rek la am di ko wax di len gërem nak ci li nga xamanteni ni seen yéene ngeen am ko def ko ci xalifa général de Layène El Hadj Abdoulaye Thiaw génn ci seen wërsëg ci mbaaxum yàlla def ko ci moom def ko cim ci ñun ñi ñu nga xamante ni ay ay ay ndongoom lañu waaye na leen wóor ni yàlla nag moo yore pay moo man yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen gën a yàlla defal ay manoore allahumma salli ala sayyidina wa sallam seetaan booy seetaan na nga dem ca telati jaani maliki ya yëf ñun waa kër Maam Maodo